mbokk yi dafa mel ni del si waat gannaaw bu ñu jógee si xibaar yi du ñu def dara du ñu def dara lu dul continuer programme bi nga xam ne moo nekk di jàll fii si Banjul jamono yi nañu jàkkaarloo ak kii nga xam ne mooy Oli Cuun di yaay Abu ak Fafa di yaayi Gaas macha allah ñoom it ñu ngi def lu mën si aar gi ñu ngi leen di gërëm di leen sant si kaw loolu noonu. Linguère dellusiwaat nañ fii si Makadis Square Banjul waaye dafa mel ni His Excellency Cheikh Professeur Alhaji Docteur Yaya ay J.J. Jammeh léegi tey mu dugg si nga xam ne léegi tey mu dugg si arène bi waaye nag li ma leen bëgg xamal mooy lamb del siwaat na cosaan del siwaat na xoolal leen ma ñu ngi fii si July 22nd square Banjul di war a welcome his si Cheikh Professor Alhaji Dr. Yahya AJJ Jammeh the president of the Republic of the Gambia mu ngi noonu du dugg si si arène bi du dugg si si géew bi war ñu war a ànd si li nga xam ne moo fi war a xew President of the Republic mu ngi noonu dugg si na si géew bi dugg si na Linguère jërëjëf Matar nim président Jammeh naata lu woo la kalloo nim président naata lu woo la kalloo ndeysaan ñëpp bëgg nen boo xam ne bu fëlasee ñëppay kontaan ñi toogoon ñëppay taxaw ñu taxawoon ñëppay tëb yal na fi yàgg te wér ñu ngi koy ñaanal laaw buur ni muy solo rek moo lay wane kii nit yi jaama la <laughs> ni muy solo rek moo lay wane nit yi jaama la macha allah ko gis mu ngi sol lu weex te loolu weex nag macha allah foo ko gisee rek uh, Matar. daaw yi tuut kuñ jàmbee ak fii la kon ji nag yal nga fi yàgg xale yi tàccu leen Yaya Jammeh ñaanal yàlla yal nga yàgg waaw leen Yaya Jammeh ngi nii tàccu leen ko yàlla tam yal nga yàgg xale yi tàccu leen Yaya Jammeh ki nga xam ne mooy Jammeh ji la kay dina madame Zeynab Jammeh Jammeh ji la kay dina nga xam ne mooy Mariam Jammeh mu ngi ñëw pour joxe loxo tamit ki nga xam ne mooy Mohamed Jammeh macha allah dama ne nag ñëpp a jóg taxaw di teeru kii nga ne mooy njiiti réew mi di ko gërëm ci kaw loolu yi nag mu ngee wër di da ngay gis kii ne mooy njiiti réew mu ngee wër pour mu ñëw rek dem rek toog yombul de faaw mu wër nemmeeku askan wi balaa muy dem toog mu ngee wër jamono yi di joxe loxo yaay Jammeh egsi na. maa ngi wóor jamono yi di joxe loxo. Jammeh <laughs> egsi na. ndeysaan jàmm rek la buga. te jàmm ngeen nuyu buga macha allah loolu rek la ko yàlla di jox. yaay Jammeh ngeen nuyu mbor yi. jamono mu ngi nuyoo. Jammeh jilanka ngeen nuyu mbor yi. nuyu ñi nga xam ne ñooy mbor yi. macha su génn tan su duga see si géew lu géew day rey rek. su ko defee nga xam ne mooy njiiti réew mi Mr President mu joxe loxo. mu nuyu askan gi. waaw waaw. won askan gi man président la. waaye maa yéen ñoo bokk a ñoo bokk a bàyyi. ñu nuyu jabari police yaa oyof. yéen yàlla rek a ñoo feyal seeni jëkkër yi. jame la ka yaa baax. na bu ñu waaye génne la seen dem rek seen kon yal na leen yàlla jàppale macha allah Jammeh jilanka egsi na mbor yi ñu ne ngeen dem boor ajaratu Fatou Ba mbor yi taxawee leen boor jeeri koli su dina ñëw jox leen loxo waaw yéen mi taxaw nii génne leen seen loxo yi ekkati leen seen loxo yi si kaw jamono yi nekk yi nga xam ne mooy suñu njiitu réew mi moo ngeen nekk di seetaan nii moo nekk di joxe loxo fan si am di jàmm yi dëkkandoor yi macha allah danga jila ka egsi na génne leen seen loxo yi mu jox leen loxo di joxante loxo balaa moo laata egg si kaw président Jammeh jox leen loxo mbori dem leen ngeen jox président Jammeh loxo jox leen président Jammeh loxo mu ngeen nuyu wante ak mbor yi suñ amee juróom président mu ngi joxe am loxo bi ba tey mu ngi nuyoo kii mooy njiiti rew mi Mr President mom la gambian si yagon di har Masha allah yàlla andil nañu ko. ñu ngi koy ñaaral yàlla saa na ne ko yàlla jàppale ndax yàlla dong moo ko mën a jàppale ak ñaani kilifaam yi ñuy nuyu suñu maam Adja Yaaboy Sombi Bojang ñu koy sant di ko gërëm si doom bi nga xam ne macha allah andil nañu ko fii si kaw su rawatina si réewi Gambia a baraka baake kii nga xam ne mooy yay Mr President waaw mbor yaa ngi ni taxaw président mu ngeen toog ba tey yéen a ngi seetaan nga xam ne mooy njiiti mi Mr President di jox mbóor ñi nga xam ne macha allah tey ñoo ñëw bëre si loxo président Jammeh mu ngi nuyu wante ak mbor malos.